waaw man maa ngi tudd Alpha di jàngalekat fee ci université bu Thiès euh, gëstu boobu lu mu wone mooy euh, code de la famille lu ñuy woowee code la famille Sénégal mooy maanaam li nga xam ne moo war a tënk lépp lu jëm ci biir kër gi ak diggante nit ñi nu ñuy dundee dafa di euh, téere boo xam ne am na ay am na solo ndaxte am nay tomb yu bëri yoo xam ne dafa nekk ay tomb yoo xam ne dafa jox jigéen ak am ak yelleefam amaana sax bu ñu jëlee loolu ñu comparé code boobu ak yeneen code yu nekk ci yeneen réew yi nañ gis ni jigéen Sénégal am nañu ak yelleef yu bëri yoo xam ne ñoo ci ëppale seeni nawle ñoo ci ëppale seen morom ci yeneen réew yi waaye loolu tamit tekkiwul ne rek lépp baax wala lépp ñuul am na loo xam ne lu ci baax lu bëri loo xam ne xamuñu ko lu ñu war a fësal la génne ko ngir ñu gën koo xam waaye am na ci ay tomb yoo xam ne du ay tomb sax du ma ne yu ñuul waaye dafa nekk ay tomb yoo xam ne dafa laaj waxtaanaat waxtaan ngir ñu gën a dooleel àq ak yelleefu jigéen fekk ne tamit àq ak yelleefu jigéen boobu bu ñu koy dooleel du nekk xëccoo ndaxte tamit booy dooleel nit ki tamit da koy dooleel ci li mu gëm dooleel ko ci li mu bëgg te dooleel boobu ci li ñu gëm ci li ñu bëgg loolu la ñu bëgg moo tax am nay tomb yoo xam ne génne nañ ko ci lu ñu mel ni droit lu ñuy woowee droit reproductif des femmes bokk boobu bokk na ci ay tomb yoo xam ne war nañ ci gën a mën a waxtaanaat waxtaan ak ñu nekk ci diine waxtaan ak ñu nekk ci aada waxtaan ak organisation famille ngir mun a génne xool waxtaan génne loo xam ne dina doon njëriñu ñëpp ndaxte bu ñu doolelee jigéen ñi man la dooleel kër gi ñëpp a ciy profito du doon góor ña ciy profito du doon jigéen ña ciy profito waaye ñëpp a ciy bénéficié wu donc waxtaan la laaj rek loola tak mooy tomb yoo xam ne moom lañ fiy gën a génne ngir naan ah tomb yi de yaakaar nañ bu ñu ci waxtaanee mun nañ gën a jëm ci kanam kër gi gën naat ñëpp mun cee dafa mel ni code bi nit ñu bari xamuñu ko loolu tamit génn na ci sa étude bi. waaw code bi boo xoolee code la famille Sénégal fii Sénégal aadoo ci lu ëpp. di référé wu ci code la famille lu ëpp bu ñu wootee code de la famille rek mooy ñaanuñu ko yàlla waaye bu fekkee ne ba dem ba sëy bi neexatul ñu dem ci lu ci mel ni tribunal boobu la ñuy woo code la famille teg ko ndaxte léegi la ñu tàmbali la ñu tàmbalee gis jigéen ñi bu ñuy sëy di wut ay papier mariage ay papier administration mais bu njëkk ba aadawuñu woon di ko def comme que aadawuñu woon di ko def nag taxoon na taxuñu woon xool code bi mais code de la famille mooy li may wax boo xoolee ci histoire am buñ koy nas sax ci 1972 kilifa diine yëpp teewoon nañ ku nekk waxoon nañ ci sa kaat ba ne lii ak kat méngoon ak suñu aada nañ ko ci dugal li méngool ak suñu aada buñ ko ci dugal te yooyu nag ñu génne woon ne lii méngoon ak aada nañ ko ci dugal li méngool ak aada nañ ci dugal moo terewut ñu bëri duñ ko jëfandikoo léegi nag comme que duñ ko jëfandikoo te am na ci loo xam ne lu bëri ay tomb yu baax la te mun na yóbbu ak ak yelleefu jigéen ci kanam yaakaar nañ loolu dañ ko war a gën a weesaare ndax buñ ko weesaare ba ñëpp xam ko ba gis ko dina doon loo xam ne day doon njëriñ te dina doon jeexital ci kër gi ak ci ñëpp. man euh, salaamaaleykum maa ngi tudd Mouhamadou Lamine Fall nekk professeur d'arabe au lycée Malick si en même temps nekk coordonnateur alliance des arabophones du Sénégal. Euh, li ñu taxateew fii tey mooy dafa doon suñ borom ba subhanahu wa taala dafa ni wa amruhum shura baynahum julli di seen mbir yëpp dañ ko war a teg ci taabul càmbar ko waxtaane ko ci kaw loolu ci la ñu invité ci benn document boo nga xam dañ ko war a waxtaane tey muy code de la famille te bañ koy def docteur Alpha Ba mi nga xam ni tey moo jox benn def benn proposition pour ñu càmbar ko la ko jiitu woon sunu mag yi diine yi de euh, desuñu ci woon ginnaaw joxe woon nañ ci seen xalaat sunu jigéen bi di soxna Soli di madame Cissé euh, invité ñu à la biais de notre ami Abdou Aziz Diop bi nekk ci Forum Civil ñu ni lu mel nii suñ ko dee waxtaanee war nañu woo kon xam ni bokk na ci côté diine soit que muy diine bi ñu bokk ñun muy diine islam wala sunu yeneen mbokk yi nga xam ne ñu ngi bokk ci beneen diine dañu bokk benn yàlla bi suñu xoolee jotaay bi ñu ngi ko ubbee ci ñaan ak imaam Ndiaye mu joxe fii xalaat yu am solo yàkkamteem moo tax fekkewul jotaay bi donc ñun dañu teewoon ci tey ci loolu pour xool déglu li ñu nit ñu moom la docteur Alpha Ba def suñ ko dégloo ba pare nag ba ñu exposé ñun danañ jël suñu xalaat joxe ko xalaat bi ñu ciy joxe nag defe nañ ni danañ ko tënk duñ ko tënk ci xalaat rek mais dañ koo bëgg a teg ci li ñu jàng gëm ko muy diine l'islam bu ñu wax ne Sénégal peut-être dëkku laïc la donte. Euh, diine l'islam bi moo fi ëpp. Mhm. ñu wax code la famille ndax euh, dina jaadu jullit bi di tënku si loo xam ne. Mhm. Euh, peut-être du charia. Ah, loolu moom mënta nekk ndaxte li nga xam ni mooy charia di islam code de la famille bi ñu wax nga xam ni dañ ciy laaj xuququl mar'a muy àq ak yelleefu doomu aadama ju jigéen surtout. suñ borom ba subhanahu wa taala fépp fu mu situé góor rek ak la ñu war a def indi na jigéen teg ca wetam kon dafa mel ni jigéen ñi li ñuy laaj mooy pour defar rek cité bi defar àdduna te bu ñu dee defar àdduna nag mënuñu caa seppi góor mënuñu caa seppi jigéen àq yi ak ni ñuy jaamoo yàlla ak ni ñuy nekke ci biir dëkk bi loolu séparé diggante góor ak jigéen kon def naa ni suñu dajee di càmbar benn dossier boo nga xam ni wala document boo nga xam ni dañu bugg xool jigéen ñi la ñuy laaj comme ni ñu ko waxee ndax loola ñuy laaj li ñuy teg dafay wuute ak charia def naa ni liñ jàpp mooy lu ci ànd ak charia ñun danañ ko wéyal joxe ci sunu xalaat wan leen ni liikat kat tuddoon na ko te charia tuddul dara luy gaañ doomu aadama kon jàpp naa ne liñ fi war a génne teg ko fi gisuma ni dana xaw a wuute ak l'islam ci liñ jàppagul mais ñu ngi xaar nag ba gis document bi ba pare. di nuyu bu baax euh, madam Diouf laa tudd Mame Sène euh, di directrice su rajo Best tey nag dama ñëw participer ci atelier bi ndax euh, dañuy wax ni nit ki bala ngaa xamle da nga war a xam ba pare. moo tax nag fii nga xam ni tey jub soir daf ñu invité pour ñu mën a càmbar li nga xam ne rek mooy document bi ñu tënk lépp lu nga xam ne code de la famille lañ ko tuddee pour ñu mën a xam lan moo nekk ci biir loolu moo waral sama teewaay fii. Mhm. ban taxawaay lañ ci auditeurs yi lay déglu war ci mën a xaar ci yu mel nii. waaw liñ ci xaar rek mooy euh, bu ñu jógee ci atelier bi lépp loo xam ne rek euh, jëlee nañ ko fi ñu mën ko partager ak ñoom ndax yàlla dogal na ñun ñuy animer ay émissions yoo xam ne li ko tax a jóg lu ci ëpp mooy fexe ba lu njaboot gi nekkee benn. muy góor ñi jigéen ñi ak ñëpp rek ci ci biir njaboot gi kon euh, bu ñu woowee ci waxtaan bu mel nii du def lu dul yokk li nga xam ne xëy na amoon nañ ko Euh, ngir askan wi mën ci jëriñu bu baax. waaw njaboot gi moom boo ko waxee góor ñi góor gi moo jiitu parce que mooy chef de famille bi. loolu moom xam naa du lu ñuy weranteeti parce que toujours da ngeen di tiit fu jigéen ñi daje rek ngeen yaakaar ne dañ ñëw pour nangu seen cër bi alors que du loolu Babacar. <laughs> yéen xam ngeen euh, ci àdduna bi laay wax vraiment xeeti violence yi dafa gën a tar. alors ñu bokk ci benn réseau international bu ñu naan WLP ci mois de mars à New York ñu tëggoon benn stratégie mooy pour fexe wutaat ay pexe yu bees pour euh, wàññi bu baax a baax xeeti métital yi nañu jël comme de départ code de la famille fukki réew ak benn Sénégal bokk ci ñu ne bu ñu ko jëlee dénk bonn boroom xam-xam gëstu bi mu gëstu sottil ñu vraiment njureefu gëstoom njureef boobu tey lañu dajale suñu yeneen naataango yoo xam ne ay farandoo lañu mais ay jëfkat lañu comme JIPSOAR comme yeneen kuréel yi ci droit des femmes droit de la famille ñu daal di yendu ak consultant bi mu daal di ñuy sotti ñu nit ñu jox ko suñuy xalaat ci mbir mi gën a renforcer document bi ba nga xam ne bu ñu demee ba toog suñuy nawle yeneen fukki réew yi vraiment liggéeyu Sénégal du des ginnaaw mais ci biir liggéey bi ñu nemmeeku lu am solo moo di am nañu vraiment ay jumtukaay yu xarañ ci le plan national ak euh, euh, régional comme international mais Sénégal jigéen ñu bari xamuñu ko. mën naa ne góor ñu bari sax tamit xamu ko donc jéego bu njëkk mooy euh, fexe ba jël ay jumtukaay moo tax yéen seen taxawaay am ci solo ay kano yoo xamee ne dinañuy wéyale ay sensibilisation yeete yu xamal ne ah code de la famille Sénégal nekk lii lii lañ fa wax loolu étape bu fondamentale la bu am solo la parce que li ngay yëngu aussi xam ko bala ngaa wax dafa gën a wóor donc looloo waral tey ndaje bi mooy gërëm teewaayu presse bi yëpp di fàttali seen taxawaay ndax ñun GIPS/WAR dañu ne presse bi duñu ay partenaire ay jëfkat lañu donc ñun dañ leen jël a ah, wut outil boo xam ne dañ ko habillé léegi ba taaru na ba suñu waay wallu yi sax ñu ngi koy utiliser muy baatu farandoo boobu muy lu wér loo xame ne saa ñu amee activité wax dëgg yàlla presse régionale bi danañ ñu won ne ñu ngi suñu wet di ñu fital di dooleel di ko wesaare parce que tey lii ngeen di jël dana yegg foo xam ne man tey duma fu mën a yegg ak sama organisation wala sama yeneen nawle